kon d'abord Baye Balla dañ naan auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ban sant yàlla julli jeune tamit sant sama ñaari waaju maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Asek borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér di nuyu sama xalifa général maam Cheikh Mati Yàlla yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana sama xalifa général Baab Daraim yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana Baye Asek yàlla na yàlla oofal yan bi ak bépp kilifa diine bu mu na yàlla yóbbu àjjana yàlla mun na ko yàlla na yàlla maa ngi nuyu suma yaay Waré Sarr bu baax comme ni ma koy defee di nuy suma grand frère sama homme de confiance suma l'homme de vie nas di nuyu famille Waré Sarr bi yëpp di nuyu suma grand mambay Paris sama benn booy Bira Bira NBA mu njaay bu guy gi caama Adama Yaari Fall képp koo xam daal yaa ngi kër Waré Sarr maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuy tamit suma papa ak suma yaay nuyu sama xalifa général papa muy Modou nuyu suma rakk Babacar. nuy ñi nga xam ne ñoo nekk suma kër Bolo Johnsena ak ñi nga xam ne vraiment Mara suma safoor ak ñi xam ne vraiment chaque jour ñu ñoo bokk di toog di waxtaan di jiital ci nuyoo bi suma grand frère suma papa suma lépp ah, Père Mansour di ko nuyu di nuyu bu baax soxnaam Zeyna di nuyu Marie Louise di nuyu jëkkëram Maurice sama pël soo bi Abu gannaaw Lamine Italie Espagne moom nga xam ne day def fépp di ko ñaanal bu baax ak beneen Lamine bi ak Lamine ñas Fagne Niass Omar Der ak Adjana Paulo ñu ngi koy nuyu bu baax ak booy ñoom Paulo yëpp ñoom Ali ñi xam ni vraiment ñoo nekk ci Paulo yëpp su ma joxee Paulo rek nuy naa ñëpp nuyu suma doom petit suma rak ñëpp rek nuyu ñi nga xam ni vraiment ñëpp ñoo toog di jàppale guy guddi ak bëccëg su ma limee damay juum koñ bi bàyyiwuma kenn guy gi di nuyu waa dawalkat sareet yi waa pip pip ku ci mel ni Demba Ama ak ñi mu àndal ñoom baj seeraas nuyu ñëpp rek ñëpp xaaju ñu fi nuyu ñëpp rek. bay baal ñu dem ci question yi. bay baal lii dafa am solo. dama bàyyi lépp ñu bàyyi lépp jàppale ma guddi ak bëccëg. suba ak ngoon kon faaw ma nuyu leen. di nuyu ñi nga xam ne tamit vraiment ñoo nekk eh, eh, eh, kii États-Unis mama Yamou Abdou Medina Laye Ndiaye mama Mati Bo sama kosu Ndoye Diouf Abdou Medina Amital bàyyi ma kenn duy suma benn gànnaaw faral kenn la ci man jibi la di ko nuyu baax di nuyu awa séeréem di nuyu di nuyu sëñ xaarim ak sëñ saaliw ak Malick mi nga xam ne nii mooy goro jibi si la depuis Suisse ak jarwaat jibi si yëpp ñu ko eh, nuyu baax léegi guy maa ngi ñaanal guy gi ñu ngi nuyu ñëpp rek waaye guy gi dañ la dégg nga ne Reug Reug dafa dof lan moo tax nga ne Reug Reug dafa dof maa ngi ñaanal suma papa Mor Faram yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana bàyyi bàlla combat bi trois ans ba mu taxee ba tey man waa ak école Lille Mor Faram président écrit Paris si la jili wadd secrétaire trésorier xaw ma ñu koy nuyu jili wadd maawo maawo ngay luum sal saari gandi eh, kirista ñu koy nuyu bu baax njaago bu tuub la di waa nuyu ñi xam ne sama mbokk mbër yi fi ñëw ku ci mel ni Alioune Seye Marle suma rak ñoom Jackson ñoom Thiaw ñoom ñoom ëmma seen senior noonu du ma leen nuyu ci lañ bokk mbaytin diwaan am lycée su ma limee damay juum ñi fi ñëw ñëpp bàyyi ma kenn tokoro ah bàyyi ma kenn ngeen comprendre am su ma limee damay juum waa kili mor faram bàyyi ma kenn suma xol laa ko tumbee ñoom ngalaa bàyyi ma kenn ñoom mor faram su ma la nee tey su ma la tey suma xol dafa sedd sedd ñëpp laa gis bàyyi la man su pas droit erreur aw ma droit def erreur ma dégg nga mam déet ñëpp ma bëgg man wallahi ki may bëreel sax dafa ma bëgg man aw ma noonu ma tax aw ma noonu ñëpp laa yéene jàmm rek rek dama koy daan dimanche si kàddu yàlla lëngu ko conseil lan moo tax nga ne dafa moo tax nga ne rëg rëg dafa dof maa ngi nuyu sa xarit kan Kéba Kanté Kéba nit ku baax Kéba Kanté yéen presse bi xam ngeen ne Kéba Kanté ku baax la. doomu nday pël. papaam Cheikh Kanté maa ngi koy nuyu ay millions yu bële la débloqué envoyé ma ko. ba tey tontu woo sama question. maa ngi koy nuyu Cheikh Kanté Kéba Kanté doomu Kéba Kanté maa lay nuyu. ba tey tontu woo sama question. lu tax nga ni Reug Reug dafa dof. xam nga lu tax ma la Reug Reug dafa dof. doo fekk dof mu mel ni guy gi. ñëpp ko teg. mbër booy bu ñu ñëw fu mën mu jëlee ci kàddu Seydina Mohamed. defal la bagage fere na la loolu ma tax jël combat ma wàcc senegal def 135 kilos bay jugo bay jub 140 kilos. gars yi na ma def ëpp di ko wàññi ba am 125 kon bëgg naa combat bi. waaye Reug Reug nee na du may benn mag dara ndax Reug Reug seetaan nga combat am ak Elton Reug Reug seetaan nga combat ak Gris bi mu ñëwee ci lutte avec frappe ba léegi amul kenn ku ko freiné. lan moo waaye yow mag gi day magu dara. mag gi mooy du magu dara dañuy wax rek. mag gi billaahi du magu dara. mag gi du magu dara bu ñu demee ba ci kanam ne am du magu dara bala ñoo avancé nag ki ki waral lii tey comme li ma ko ci presse bi rek muy suma ganaar lii du euh, jàng defe naa ni ñun dinañ am benn spécial boo xam ni dinañ ko def teere Amadou Bari muy liiru jaan ñépp xam am lum lum lum représenté géejawaay yow mën ngaa gis liiru di xuloo ci beneen dëkk lul géejawaay mën ngaa gis liiru di jàppal tànk benn dëkk bu dul géejawaay amul kon defe naa ni ñun jot nañu delloo ko njukkal ñun mbëri suñ nee monument géejawaay damuy dëgg ci ñun kon jot nañu delloo ko njukkal te man dinaa ci dox dinaa ci wax incha allah. lan la xanaa da nga demewul rëg dama. làmb joo xam ne trois ans la ñun ñëpp kenn ku ne dara dara mel ni métti. bu desee 4 jours daa jëre waxati lu ci des seen présenté jëf rek moo des incha allah. wax leen ok. waaw. waaw. bu bu njëkkee woon bu njëkkee bu njëkkee woon ci man rek du du du du continuer kii dafa njëkkee woon ci man nag. waaye mbaal du ñëw géejawaay ci géej ga la jëm mbaal wutiwul dara géejawaay. kuy mbaal da mbaal jën ñun du ñuy jën ay doomu aadama lañ. yaat ma ba boobu yàggatul yéen ñëpp yéen a ngi yor seen bët di xëpp di xool. waaw mais guy gi ki nga xamante ne mooy rëgg la. Hmm. dañ fi lu mu wax. Hmm. Hmm. ko mu ni waaw. mu ni biir làmb ak biti làmb moo la dàq xeex looy tontu si loolu. bu doon dañoo jiitu ci mbedd man ak moom caméra nekk fa dara nekk fa nu ma neex laa koy def. waaye nag. léegi réseaux sociaux yi dañoo bari ba ku jug rek lu la neex wax. waaye yàggatul dimanche soreetul. ñi ñi ñi ni woon ñëpp dañ may duma. yaakaar naa. <laughs> yaakaar naa ko de. dama dégg nga ni. waaw. Léone 2012. waaw moom nga ni si combat bi lu waral nga wax ko. bii moo raw. ki dajal nawlawu ma respecté wu ma tegul ne nit laa. te bu may kan. dina jël dissociation bu yàgg bu xamoon maay kan dina jël kiyam waaw Fadel waaw Fadel waaw Fadel ah waaw waaw loolu moom bataille kenn ku ne da ciy wax mais man yooyu dama ci xam naa sama bopp man su demoon ba munuma affronter Reug Reug yab ma samay supporter yabu ma koñ bii ma dëkk koñ bi ma dëkk kuy noyee làmb fi nga bokk fii te bala nga waxam incha allah dimanche nga ñëw boo ñëwee dinga gis lu yéeme lu leer nag laa lay wax kon yabu leen bay ñëw di dem di leen nax naan leen lii ak lii trois ans laa def di jàng xeex lu ma am xeex moom ma ko gënal man dama mën a xeex mais wane wu ma ko xam nga kañ lañ ko wane nee na mënu ma xeex na maam mu ñëw ci man su maamee ñëw ci man ñu lëngu ko muñ bi. Fadal toog nañ di seetaan match Sénégal man ak yow mu ni dafa am def ci loxo yi man ko yàlla na génn ci combat bi man li ma def sama loxo du ma ni na génn ci combat bi xam nga lu may ñaan mu mu déclenché sama xeex su ko defee ay mbokkam lëng ko ñu ñibbi. du waaw man sama combat yi ma jox favori yëpp yàlla na demee noonu waaye nag sunu papa Mbaye Gueye daa ko boobu am solo ak Boy Bambara mu ne guy gi kenn mënu koo pronostiqué papa papa Mbaye ko yóbbu àjjana mu kenn mënu koo pronostiqué Boy Bambara tamit maag Mbaye Diouf ñuy bëree mu ne màgg bëri ma bëree daan mu ne bay ñëw bàyyi ko ci làmb kenn mënu koo pronostiqué sama papa Mor Faram damay entraîné ba pare mu woo ma ñëw mu man du ma la nekkal ci état rek te kooku il est champion d'Afrique champion du monde champion de Guédiawaye kon loolu dañ koy bàyyi xel bu baax te dañ koy bëre waale guy gi dama am benn question question bi ma am mooy dama gis mu def benn genre bataille psychologique seen ah. diggante ak Balla Gaye 2 ah yow père waaye seen diggante ak réew mi non non non c'est très bonne question c'est très bonne question attends attends moi je réponds la parole déglu leen la déglu leen la très bonne question Père Mbow. waaw am solo. dama def keroog sorti jooy sama xol moo tooy. man kenn xoo kenn ku xam ne doggule naa sax néew. jooyu ma sama papa Mor Fara mii man ak doomam ñoo ko sang. ma dugal ko ci bàmmeel. mujjee sama tànk rocc ko te jooyu ma. te am na lu def ci man. kon xamal bu ma jooyee keroog am na lu tax. mais la jooy moom yàlla bu mu ko dal. lan nga jooy no xaar rek yàlla mu loolu sama gannaaw nee na ma liiru jaan mii bu ci waxaata du ma ci wax man man damaa dégg ndigal du ma ci wax mais dama ne li nga wax laa lay tontu yow da nga ni sama diggante ak Balla gay Balla Gaye su ma diggante ak moom su amee benn loo xam ne sama xol jàppal naa ko yàlla bu ma daan combat bi yàlla bu ma daan xam nga combat bi mooy suma àdduna ci làmb yàlla bu ma daan combat bi barke alxuraanu karim nekk naa fa ma nekkul moom ak Sa Thiès muy werante ci làmb ji bay nar a jàppante kooku dëgg la di ma wax ay qualité yoo xam ne yegg suul ci man ne nii nga koy daane fii boo toggee sa nekk sax tifli boo xëyee ñëw tifli nga ku xamul neel benn beneen bi ma wax ne am na ñu jàppee seen bopp kilifa. mu bëgg a dox sama digganteeg géejewaay ak digganteeg Balla Gaye 2 ba tey sociologique naan. psychologique naan naan euh, euh, nekk géejewaay naan mbër yi dañ xeex. kon su nee mbër mi ñëpp a dem ci Balla Gaye. neel waa benn ma génn leeral ko ma ne ko waxuma mbër su ma nee mbër yàlla na yow yàlla nga ma daan. tuddoo mbër sax tudduma mbër déedéet mais la tax ma jooy maa ko xam kilifa nga wax Balla Gaye def jooy jooyati jooyati jooyati dëgg la mais man la tax ma jooy maa ko xam dëgg mais jooy kenn ku ne ko moom mais lu tax doo jooy moom ma teel a jooy naan ma jooy gëmu ko mais loolu kenn du ko def naan jooy gëm li ma dal yéene ma ko yàlla bu mu ko dal ba ma jooy yàlla bu mu ko dal man du ma am bataas di woote wàllu nee na may woote wàllu ñaata combat laa fi bëri wéet billaahi ma dem stade yàlla may ma ndam kon dum man soti Omari Ndak laa sama maam diineem deret ak i bal la ko jëndee man sëtam laa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 Reug Reug il est fou man il est fou ñaari fou lañ daje. ñaari fou dañuy daje amul bataille psychologique amul ñun xamuñu loolu sax mënuñu ko wax sax tur bi mënuñu ko wax. waaw combat bi amul ko tëgg di naa leen wax ne leen ne yàgg naa leen wax ne leen man maay sama sponsor bu bopp. Abdoulaye Ndiaye wax na ko. man rek ngay tëgg ma ne ñaata sama supporter tribune ak tirbin bee ñaata koy fees. ma jël ko samay billets. bi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 déggoo ma de xam nga gars yi dañoo tàmm di saltel borom sareet yi naan borom sareet borom sareet liggéey lañu xam kenn ku ne responsable la jëmale la yor chaque jour maa woote bi. dañ koy njëkkee. non moom bi. woote bi. woote fi nga xam ni moom fi dëkk. muy Asegna. Alba. Daaru. xam nga képp ku nekk as yëmbal bi jaxaay jiboo marsa diisoo arlem njaareem teere jaxaay njaboot gi notaire fir mbiic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 ne leen jox ay billets. sa jox leen ay gars suma frère suma mag suma lépp. kenn ku xam dafa nekk ci tawat. dafa nekk ci tawat mënul ñëw ci open de presse bala ngeen naan lu tax gis ñu ko. la dëgër il le bouge déggante léegi. dafa bougé mais ku gis Alioune Seye. gis Marley. Ah, gis Jackson. gis Thiaw ah gis ñoom Bougane. mais yow loolu kon jël su naan diwlu dara ñëwul. saytaane yi waaye benn